bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa salaam ala ashraf al xalq sayiduna tasliman mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw ñu ñaanalee Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko moom njaboot suñ Tuubaa nga xam ne ñoom la ko bokkal ñëpp ñoo ngi am mbégte mu rëy rëy ak kontaante di gën a delloo Serigne Touba njukkal di ko sant bu baax a baax a baax ci tawfeex jure ji nga xam ne maanaam moom la ñu desal moom la ñu defal euh, daayira bi nga xamante ne si ne moom ngeen jàkkaar loolu muy daairatu Nuuru Daarayni di daayira boo xamante ne si dañoo sosu fii ci koñ bi Touba Poulaye di ay soppe yoo xamante ne si ne dara nekkul seen seen objectif seen bëgg-bëgg lu dul liggéey Serigne Touba Xaadimu Rasuul jaare ko ci Serigne Mbacke mi nga xamante ne si ne tey moo taxawal bis bi woote ko muy san san san Serigne Touba yàlla ak liggéeyal ko euh, ginnaaw bi nga xam ne suñu borom defal nañu feex ñu nekk ci liggéey boobu di ci at di ci liggéey am atum yàlla atum lëm baaxoo nañ saa bu ñu egsee ci bis bi nga xam ne Serigne Mbacke da koy taxawal di ci san Serigne Touba di ko ci fàttaliku su ko defee mbokki daayira bi ñëpp dañuy teew fii ci bis bi dajale li nga xam ne maanaam moom la am ci seen addiya mu néew mu bari ñu teew kanamu Serigne Mbacke fekk ay bokki boppam teew ñi nga xam ne maanaam ñoom la bokkal liggéey bi ñëpp teew ay soppeem teew ñëpp teew su ko defee ñu jël liggéey boobu nga xam ne maanaam moom lañ ko doon moom lañ doon liggéey ànd ak moom di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ñu teewal ko fii ci kanamu mbooloo mi teewal ko xamal ne ko ci ne ko ñu nag moom ñooy ñi nga xam ne maanaam ñoo bokk liggéey bi lu mu naaj naaj naaj naaj lu muy taw taw taw lu muy sedd sedd sedd ñu nag moom incha allah ñoo koy fas yéene ànd ba mu jeex tàkk euh, loolu moo waral tey ji bu ngeen gisee jataay bi kon jataay bi demee noona kon daayira bi nga xamante ne si ne ñun ñoo nekkoon doon ci liggéey lu tolloog atum yàlla te yi lañ teew fii ci kanamu Serigne Mbacke Niang mi nga xamante ne si ne dañ koo sopp rek te li tax ñu sopp ko xasida Serigne bi nga xam ne ci la nekk di ci nab na bi guddeeg bëccëg loolu mooy li nga xam ne maanaam moom lañ ko bëggee te loolu mooy nga xam ne maanaam moom lañ ko soppee te ku ne xam na ne ku deful ci àllarbay sëñ bi dem ci dibéeri Firawna ku deful ku deful ci ndabal njool màkk def ci ndabal njool mànki te ñi nga xam ne maanaam jëmuñu jëmuñu ci loo xam ne maanaam lu baax la sax ñoo ñu ngi leen di defaral ñu ngi leen di wutal ay fans club loo xam ne maanaam dañ leen ci ay association yoo xam ne dañ leen ci dañ leen ci jàppale di leen soutenir kon alhamdulilahi rabbil alamin bi nga xam ne borom dañoo defal tawfeex suñu ñàq wi nga xam ne maanaam moom lañ doon ñàq ànd gi doon ànd suñu yitte nga xam ne maanaam moom lañ doon dagg yëpp ki nga xam ne moom lañ ko jëmale ci moom mooy Serigne Mbacke mi taxawal sant Serigne Touba te Serigne ko defee kenn ku nekk ci noonu am nga taxawal Serigne Touba bis bu mel nii waaye kon bu fekkee ne moom la ñu dëkkal suñu borom boole ñoo ngi moom muy jàng xaside sëñ Tuubaa yi woote lu mel nii te alxuraan dafa wax ne astajibu lillahi wa li isaa daakum li maa yuhyikum na ngeen wujji yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee dañ leen a woo ci loo xam ne lu leen di jariñ la kon sëñ Mbàkke ñu ngi lay ñaanal euh, suñu borom dafa la kàttan dafa la tawfeex yàgg say waajur ak soppe yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo la wuy si fii ñëpp ci bis bi suñu borom dimbali la ba bis bi nga yàgg ko woote at yu bëree bëree bëree bëree bëri te at mu incha allah day gën a kawe at mi nga xam ne maanaam moom moo wees woon ndax loolu mooy liggéeyal mooy liggéeyu sëñ Tuubaa te ku ne ci nun tey am nga mbégte moo xam maanaam soo ko yëgee soo ko waxee ak boo ko waxul lépp am na mbégte mu rëy rëy moo xam moom moom ngay ndax sëriñ bi mooy la maamu saaka xoon ci moom rek da koy xool moom yàgg mu ne àll ak kër ak gor ak keddoog sëriñ buur ak dak mbokk ki jàmbur ñëpp a jag jaaraama daam ci xarnu bi sëñ Touba moom mi nga xam ne maanaam lépp moo nu ko defal kon tey ji bu fekkee ne delloo nga taxawal nga bis xam ne da delloo sëñ njukkal moomee ñu teew ci bis boobee indi li nga xam ne maanaam mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy sunu sunu sunu sunu addiya te mu nekk loo xam ne lu nu xeeb la lool bu ñu sañoon bis bi incha allah lépp lu fi deen noo koy rendi waaye bu yoon jeexu wax si jeex incha allah bu nee ba ci kanam da xam ne soppe yi sopp nañ la te sëñ Touba tax mbooloo mi bëgg nañ la te sëñ kon yoon wi nga nga nekkoon ba lii lépp am incha allah gën caa continuer rek te incha allah nga xam ne euh, lu baax rek mooy li nga xam ne maanaam moom ngay moom ngay moom moom am kon ci turu mboolem waa daayira Nuuru Daarayni euh, dama leen doon ubbi rek waaye samay kilifa ñoom ñi ngi nii mooy ñi ko jiite di Serigne Malick Diagne mi nga xam ne maanaam mooy kilifa gi suñ ko tuddee dana mën a yóbbaale mbooleem waa mbooleem mbooleem góor ñi ñëpp suñ ci tuddee soxna Soda jaw ci jigéen ñi ak soxna Fall ñoom ñi nga xam ne maanaam ñoom la ñu àndal ñëpp danañ mën a yóbbaale jigéen ñi kon dama doon ubbi ci seen tur rek waaye kilifa yi ñoom ñooy ñi nga xam maanaam ñoo ngànk daayira bi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex defal ñu kattan bis bi ñu yàggee ko fekk ay at yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri su ko defee euh, ay tutànk nag fépp fu ñu dajee te ñooñu dañuy def ci ñoom alxuraanul karim yàlla nañu yëkkati seen baat wane fa li nga xam ne maanaam mooy téereb suñu borom subhanahu wa taala kon nañuy jox euh, benn tutànk ci ñoom su ko defee mu feeñal yéeneem mu bokk ci ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy jànge ci daari soxna asukan muy soxna mati euh, soxna mati ñang moom la ñuy jox kon incha allah mu feeñal dara ci ayatul quran yi nga xamante ne si maanaam moom la ñuy def ci ñoom kon su ko defee soxna si bisimilah bismillahi rahmani rahim ilayya annahu stama nafarum min al fa qaalu inna samihna qur'ana hajaban يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك بربنا أحد وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله ستة wa inna sananna an lan taqula linsu wal jinnu ala allahi kasiban wa innahu kaana rijalun minal insi yuhsuna birijalin minal jinni fasadduhum rahoqan wa innahum sannu kama sanantum an lan yab'asa allahu ahad وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو di wax saxay kii bëgg di wax loo sax loo xam na ni kii bëgg yow na yaa gën ñëpp saa bu ci yow ni ñëpp la gën wax sa ayib wane ko doodoo daw ba raw ci mbirum nit baa nga jot ngërëmam mu toog defal la nga man yooloo mënul ko réew loo mënul ko li xew ci ji jamono bon rekk yàlla na ñu may rëyëg ka njaanak ndëg ma koy daqas ko la gën fop pak di yàpp ko la ak jëw ni tëg biir ko ak lakk doo xama fay ak feccum wala rek yaa ni seex ak ko am asra lem gane séeréer ne tum nanu bu wóor sant la it bam defi joor yan ba bon jàdd sa boor def ñu dul dem sa wara man seexu Bàmba laa gërëm gëm ko mu am ci man xorom yàlla na may ak saf xorom te doolu ñëpp sutura te may na ay noog suñu njaboot musal noog dara fajal ñu suñuy te bul ñu natt bul ñu jéppi bul ñu xaddi bul ñu topp bul ñu jàppee lu ki doon daal alxuraan ji alxuraan na sell na gone yi doon def addis bi et addis bi lépp aw na ci yoon kon dañu jaajëfal soxna Astu rek bu baax moom it di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax tawfeex sëñ Tuubaa di ko ñaanal bu baax soxna Astu suñ boroom yokk ak manam ndax lii daa doon loo nga xam ne mënut a ñàkk rawatina ki nga xam ne yàlla dogal na waajuram moo aaye bés mu dikk tarif alxuraan ji nga xam ne yombut gone it waxtaan fii ci fii ñu toll ci àdduna nga xam ne li alxuraan naan fa inna zikra tan fa inna zikra tanfaul muminin wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ah sun borom nee na bind ma lu dul nit ak jinne ngir ñu jaam ma te it buñ jóg ci mukk di fàttalante sun biir kon soxna Astou ñu ngi lay jaajëfal bu baax am na solo lool. yàlla na suñu boroom defal tawfeex ci alxuraan ji li nga ci bëgg lépp yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal ci barke Seexul Xadim kon dañ lay jox kàddu gi rek tafaddalan maskura nga daal di sànni ay kàddu. di leen balu àq te di leen balu àq gannaaw loolu rek ñu ñëwoon di siyaari si sëñ Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ñu yàgg koo siyaar ndaxte sëñ Mbàkke dañoo xeebut benn yoon suñu daara yi li muy ndaw ndaw. su màggal gi agsee day waaxu ba si ñun wax ñu ko xiibut gone yi benn yoon moo tax ñu dagg sun altine ji tey ne duñ ko jàng tey nañ dem ba ca sëñ Mbàkke teewal ko ñu mu xam ne ñu nag moom ñooy ànd ak bis bi ba mu jeex di ko ñaanal nag mu yàgg fi lool te wér ba lim sommi mu àggalee ko fu kawe njortam ginnaaw loolu nag soxna Daba Xaye mi xëy na lee xëy na lee wax jee kawewut soxna daba soxna daba xaye mii xëy na lee wax jee kayewut te amuñu micro bu mën a jël waaye lim fi wax lu am solo la ndax nee na leen yéen xale yi nee na leen nan mën a dox tey bañ di soox bu nu xuloo mukk ka xeex te yàqkat yi mel ne meex buñ ñu mënal mukk dara séeréel ne tuub nanu bu wóor sant la it ba mu defi jóor yar nu ba buñ jàdd saboor def nu ñu dul dem sawara nee na waxaale na tamit nee na man Seexu Bàmba laa gërëm gëm ko mu am ci man xorom yàlla na nu may ak saf xorom te doolu ñëpp sutura ta may nu ay leer ak i mbóot yu rëy te yokk nu njaboot musal nu noox sunu njaboot ba bu nu gis ci dara fajal sunuy xaajate bul nu natt bul nu jéppi bul bul nu xadd bul nu topp bul nu jàppe lu nu deful dara soxna Daba Xaye mii daa wax lu am solo soxna maam jaara ñang miet wax na lu am solo ndax nee na jamono ji xaste fi ak i fen di wax sax yib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 soxna Mati Ñang mi tari na fi lu am solo xuluuxiya ba mu jeex ñaanal leen ko rek bu déwénee mu weesu mu weesu fii yàlla may kom xel ñoom ñëpp rek ba liñ bëgg ci alxuraan ji ñu defe ko nu kayo seen yor ñun na ñoo ngi sant ba fu sant ya salaamaaleykum wax rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi fi teewal soppay sëriñ Tuuba nooru daarey ni ñoo ngi leen di nuyu ci tur ki nekk sëñ Touba di Cheikh Mountakha Bachir Mbacké ñu itam nuyu bi ñu ngi koy yëkkati di ko delloo sëriñ Mountakha Mbacké al Bachir di nuyu njabootu sëriñ Touba gépp mbooleem njabootu Mbacké ak Mbusoo bi di nuyu njabootuk seexi seex yëpp di ñaan yàlla sàmm leen ba fi ñu yéenee yóbbu yoonu sëñ Tuubaa yi yóbbu ko ba saahiran wa baatinan ama baada ginnaaw loolu ñoo ngi cantati waxuma ñoo ngi sant dama ne ñoo cantati ndax ba buñ ne ñoo sant day mel ne benn yoon la lii dafa nekk ay canti cant bon ñoo santati lan wax ñoo ngi santati yàlla yàlla na sant yokk di sant yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na cant yokk di cant njabootu sëñ Touba gépp yàlla na cant yokk bi jaay Xaadimu Mustafaa di sant almuallim yi fi teew di sëriñ Cheikh Diop dëkk Taïf Mbakke teew fi waa Taïf Mbakke teew fi sëñ Moustapha Ndiagne ñoo di ko siyaar di tey eh, di sant Cheikh mi nga xam si moo yor daara ji nekk fii di jàngale ñoo ngi koy sant di ko di sant Serigne Mbacké Dia mi nga xam si moo bokk liggéey bi yor école bi fii di jàngale te teew nii ñoo sant di sant. mag ñi nga xam ne teew li nga commencé ci Baye Muccoon ba wàcc ci suuf di sant ñëpp ku lim juum ginnaaw loolu nag sëñ Mbakke waa dayo soppay nooyu daarey ni ñoo lay nuyu seen ci kaw njiit li ñu def ko tu tànk bi nga xam ne si dongo bi gën a topp ginnaaw di Malick Diagne ñu si des ñëpp ñooy sumay kilifa ma topp seen ginnaaw te nangu ko nag tey nangoo ndi déglu ndigal te ànd ñoom ci kaw ndigal ñoo ngi lay di la di xam ne ñoom de am nañ aw naqar naqar wi am mooy bu soñoon tey bis bi danaa la sëñ Mbàkke bis bi na nga ko bëggee ak fan ko bëggee ak noo ko bëggee ñu defake nanga ko bëggee waaye nag yàlla mooy dogal xañ nag kuy dox di jàpp si bant xat yàlla mën naa dogal ne danga mën a dem ba am yet woo jàpp mën a taxaw ñel noonu yàlla may yet woowu ba am dëgër ba mën a taxaw ginnaaw loolu nag bis bi du soo bis sëñ Mbàkke sunu bi sax ñun soppee xasaat yi nga yóbbu seen siidi muxtaar mu ne noobu déré ñi ñun ñoo mu ne ñoo moom bis bi yàlla jagleel la ko ñu seet ku nu neex nga neex ñu ànd yar ànd ak teggin ànd ak sutura ànd ak ku nekk ci jafe-jafe nga ànd moom ku nekk ci metit nga ànd moom ku nekk ci tolof tolof nga ànd ak moom loo dégg dégg si ki ngay àndal nga bàyyi si itti dem ca ñoo ngi lay ñaanal ngir yàllaa jëm suñ tubaa faqaari ngay egg si xasaayit yàlla na fa egg yéene nañ la ko suñ xol yegg na fa di ñaanal sa waajuru tedd wi Baye Mouhamad Lamine Niang bii ak Baye ña Baye Mbaye Niang ñii nii yàlla nañ fi yàgg lool te weex te bennoo gin bëgg yàlla na yàlla nekk si kër gi sax si dàkk sa mag nag moom di sëñ si mbay ñang ñëpp xam ko ñu dañ koo mbaa yàlla dañ koo mbaa yàlla ndaxte dayre bi bañ koo jébbale démb waaye bañ ko nagee jébbale démb da nga ne eh dayre bi bu ko jébbaleel démb muy démb lañ ko noo jébbale da ngeen ne bu bokk ñëw ngeen jébbale suñu dayre saay bokk dégg li ngay wax ba ñun Cheikh yi ñang dañ koo mbaa yàlla li muy def ci lu baax xam nañ ko jóg ñu di ko wax buñ ko doon wax fee ñuy fanaan waaye dañ koy bàyyi man ki man mooy kenn sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fayal ñu rek looloo leen bëgg sëñ Mbàkke liggéey baa ngi nii xeeb nañ ko lool almet lañ ci booyal almet lañ ci biir na na Seex Anta Gaawaan defoon rek almet lañ booye ci biir bu la neexee fobal léegi génne almet yi léegi taal ko mu tàkk léegi nga xam ñun yéene nañ la ko dund la benn la bu dund la fukk la dund la téeméer la yàlla xam na yonent bi xam na ñun ñu ko joxe xam na mbooloo mi xam nan suñ mbàkke am suñ xoosee na guy ñoo ngi lay ñaanal ci bakke sëñ Ahmad Jaw yàlla na doon suñ jiglaay lan moo ko waral bëgg sëñ Tuubaa ndax déedéet wa déedéet wilaaya bu Keleel ñëw nañ fi léegi ah ñi nga xam te ñooy daara askan it muy tuut tànk yi nga xam te ñoo ñoom ñoo ñu itam ñëw nañ fi léegi kon loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo la ndax lii lépp ci ci soppe yi sëñ Mbàkke ci la génn ci moo ci la ci la génn ndax déedéet bi bi ñu ko commencé ak léegi ñun day ñoo ngi sant yàlla. di sant sëñ ci di sant sëñ ci di Moxtaar Mbàkke mi nga xam ni yoggu rek la fi jógee yàlla na ko suñ borom yokk ay leer di ñaanal sëñ sëñ Muntaxa Mbàkke mi fi nekk tam yàlla na yan bi meen yàlla na ko suñu borom oyofal waaye ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax ndax tey jii kat ñun yoon yi ñu nekk sant ñooñ ci sant suñu borom ñooñ ci gis suñ bopp ndax gis ci gis ci xam ne gis nañ ko suñu bopp mooy suñ doom yii nga xam ne suñu borom dañ ko jox ñoo war leen a jàngal lislaam asukan mi nekk di suñu rek di suñu jigéen yor suñu njaboot ci biir kër gi di leen jàngal ñun ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax parce que yërëm nañu yër nañu te kenn ku nekk xam na Astou Kane kan Kane Baye maa nga xam ne moo nekk Darou Mousty ku dugg Darou si xam ni kër googu kër Alxuraan la kon loolu su amee Astou Kane mi ànd na ñun di liggéey sëriñ Touba ñun de dañ koy ñaanal lépp loo xam ne bëgg na ko ci doo ci xaleem yi mu yor yàlla na ko suñu borom defal sant nañ ko bu baax a baax a baax a baax waaye maa ngi sant waa dëri bi yëpp noonu daal di ñun ñëpp ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp ñoo ngi leen di sant baax a baax a baax di sant it oustaz sunu oustaz Dia mi nga xam ne itam chaque talaata bu njëkk dañuy dajale ci benn kër mbokku talibé su ko defee ñun ñëpp buñ fa day def fa réunion sëñ Mbacke Dia mi moo fay ñëw toog def fa waxtaan kenn ku nekk mu wax leen ñi fonk l'islam ñi nga xam noonu lañ koy doxalee te loolu dafa nekk itam loo xam ne lu am solo la kon loolu su amee ñun dañ koy ñaanal yàlla moom itam yal na yàlla guddal aw fanam. di ñaanal nag ki nga xam ne mooy suñ soppee di sëñ Mbàkke ñang yan bi nga yenu ñang yàlla na oyof sa kaw ndax tey ji bis bii tey ku fi ñëw dana xam ne lii du jëyil ndax say bokk yëpp teew nañ say dëkk ndoot teew nañ dëkk ci koñ na koñ ba bëgg la yaa ko yaa la tax ñu bëgg la yaa ko ji yaa koñ ba ndax su nëgë ni fekkoon nga demee ne nit ku la romb it da lay da lay naan na nga def maa ngi ci rek dem yoonam waaye nag ñang defoo loolu ndax ñëpp nga jox gëdd kenn ku nekk li nga war la moom jox nga ko ba mu jeex tàkk kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy soppe xasaayit ànd ko yow di liggéey Serigne Touba ku ci ku ci képp képp loo xam lu ci waay nekk ànd nga moom bu dee naqar ànd nga ko ak moom bu dee bànneex am ànd nga ko moom kon ñëw nala leer na ñun dañoo ngi sa ginnaaw duñ la fàtte benn yoon muy guddi muy bëccëg foo ñu nuy jógal daanu jóg foo ne nañ leen dem daanu dem ndax yow lañ am yaa way sañu rek dëggal nga ñu fonk nañ la li liñ bëgg ci doomu aadama gis nañ ko ci muy bëgg xasaayit ak yaru ak doonu taalibe ba fun la seen ab jukki la ni seen sa loxo kon ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla mi nga xam mu comme jaamal nga am jaam nag yàlla na ko suñu borom def di nuyu sëñ Modou Thioune mii sa moo xam ne tamit wax dëgg yàlla sopp suñu soppe la ndax suñu kilifa la suñu xalifa la di ku baax di ko xam ne tam di ab taalibe di ku bëgg sëriñ Tuubaa di ko xam ne tam xasida rek moo ko ñor kon na la leer ni kooku tam bu la ko suñu borom joxee danga koy da ngaa war a santal suñu borom kon daal ñun sant nañ bu baax a baax a baax a baax a baax bin yàlla boolee jànkati xasaay ji ñun daal ñoo ngi seen ginnaaw muy guddi muy bëccëg loolu nag laa amoon loo xam te dama ne mënu ma ko jeex bañ a sànni kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.